musuma nangu wax lu dul dañ ma ne naa wax waaye faaw ma wax pour situation bi ndax yenn saa yi ngay jàppale détenu fekk derrière yaa ngi xalaat naan kii ba ñuy xeexal détenu yi ci bu jiitu fan la nekkoon anamu woon day am ci ay détenu parce que am na ñoo xam ne danga leen di woo ci xeex bi amaana dalagu leen du ñu xeex tey caabi féete leen ginnaaw du tee taxawaay googu ñu am ci ñëpp moom lañuy am ci ñoom waaye faaw ma wax ndax fii bi ma fii njëkk ñëw ci cadre détenu politique yi la woon na ma na may tàmm di tooñee gaa ñi naan leen dem nañu ñu berndeel ñu ba noppi nit koo xam ne mu ne la saa yoo leen xewleetee ngir détenu yi donte jàpp ñu doomam jàpp ñu sëtam jàpp ñu soxnaam jàpp ñu yaayam jàpp ñu papam amul ku ñu jàpp ci ay mbokkam moo ñi ñu jàpp ñëpp ay jàmbur lañu ci ñoom mu ne la saa yu amatee manifestation wala jéego boo leen ciy dox woo leen ma dinaa leen ci fekk si ci kuréel googu laa xamanteeg moom. bi ma fiy ñëwaat deuxième fois ci biñ koy tëye la ma ñëw seet si soxnaam si muy jàmbaar lool di lingeer di jàmbaar lool sax jàmbaar joo xam ne nangu na dogal kon mënuñoo ñàkk wax waaye nekk na kaso dignement génn kaso ma ba muy génn boobu ñu ngi ci waajtaayu màggal gi ñu ngi ci digg safar après màggal gi dama delluwaat ci kaso gi fu ma dem ba ci professeur Cheikh Omar Diagne nee na sant na la gërëm na la ndax ca bésu màggal la muy xat xaw ma Touba la jóge xaw ma fii la jóge waaye biir na ma ni Touba la doon dellu dellu na ci ay mbokku détenu yom yóbbul leen bernde yëkkati ci alalam jox leen am ñu mu dugalal ba ci ñoo xam ne amaana Euh, du ma ne sax miinantewuñu woon waaye jàpp na ni situation yi ñuy dund métti na mu yëkkati am amam def ko ci kuy doog a génn kaso te nga waroon tëdd dallu waroon a faju waroon a noppalu wala waroon a màggal ndax man mii yàgg di dox ci détenu yi sax ba su màggal ba mu jotee damaa dem màggali te lendemain bi laa agsi waat Dakar waaye muy wone dimension bi nit bi am mooy avant ñu koy jàpp mi ngi doon xeexal détenu yi saa yu manifestation amee moom moo lay soññ ci wax leen ma ñaata ngeen soxla wala teg naa cash temps uniquement pour ngeen xeexal détenu yi te boobu fekk na jàpp ñu mbokkam tey moom ñu walbatiku ja caabi féetee ko ginnaaw ci cause boobu mu yàgg di xeexal tey mu génnaat dignement ba tey ñu war koo mën a seet si ak fierté laa fii ñëwee mosuma yàkkamti wax waaye tey lu ni mel faw ma wax ko ndax dafa di di jàmbaar di di koo xam ne jàmbur moo ko gënal jëmmam en tout cas man loolu la ma woon te noonu la doxee kon mënuñu lu dul sargal ko moo tax bés bu ni mel dañoo ne suñu jógee ci Pape Abdoulaye Faw ñu ñëw ci yow seet si la masawu la man gaañaang la naan namm naa la daan nañu gisante foofu pavillon spécial te maa nga fa nekkee ku ñëw yaa koy defal yaa koy dalal nit ki ci circonstance yu metti ngay xam nit ki ban ban xeetu nit la ban ban ban ban ban ban kilifa la ndax kilifaam la ak déet te man loolu la ma woon ba ba ma ko fay fekk ku ñëw moo lay dalal du yow yaa koy dalal moom moo lay dalal delloo si la rapport yi mu am ak garde yeeg yëpp c'est extraordinaire pour montrer dimension bi nit ki am donc di ko fasaaleel rek di ko ñaanal te di sàkku ci moom ay ñaan itam yàlla na borom bi gën a dëgëral taxawaayam ci saay rek ci baatin yokk ko ba mu yëg ko te lu ni mel mu doon épreuve boo xam ne ginnaaw la koy féetee du ko dundaat et vivement 2024 lii yëpp doon ay nettali ci anam yu gën a rafet ci képp kuy détenu politique ni nga génnee nii dignement yàlla na képp kuy détenu politique génnee noonu te itam di sàkku bu baax a baax ci yow ay ñaan ngir ñu mën a wéyalee liggéey boobu jërë ngeen jëf ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la Tatagal, di ñëw fii ci turu kurel bu ñuy F24 F24 depuis quelques jours euh, ci proposition chatmi ak Yolande dañ ne woon gannaaw bi nga xamné ñong koy xex pour libération détenus yi aussi ñu mëna def le tour des familles même bu ñu mënul def famille mais au moins ñoo xam accessible nañu ñu mën dem foofu pour di leen massawu euh, won leen également wéetuñu ci xeex bi ak euh, japp bi nga xamné japp nañu seen mbokk euh, ci activité boobu lañ nekk fan euh bu Pape Abdoulaye Touré biñu ñu yégee ne lay am téméri fan

Euh, comité exécutif lañu bok man mi maa ci comité exécutif bi bien vrai que leader la ci F24 mais dama bok ci comité exécutif bi Yolande mi ci comité exécutif bi la euh Thiat ci comité exécutif la bok ak ñeneen ñi nga xamné nekkon nañ fa euh, mais également ñu né activité bu melni il faudrait que mu am ay leaders yo xamné dañ ci bok motax tax madame Baki, également bi nga xamné dafa yoré euh mouvement citoyen

ñu ràññeeku nga ñu ràññeeku lañu donc yow ci nga bokk mais amoon ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la te yàlla xam na ni euh, jaay nañ la doole dugal nañ la kaso te teguñu ko fenn parce que ñi ñu war a tëj kaso ñoo ngi fi di gën a nekk ci lu ñu nekk mais ñoo xam ne ay citoyen lañu ay nit ñu baax lañu nekk fii di. taxawal askan wi nekk fii di dimbale askan wi yow ci nga bokk léegi nag ñoom comme benn arme politique la ñu am mooy képp koo xam ne moo xam li ngay wax la moo xam li ngay def la méngawul ak ñoom nuñ ko bëggee dañ lay fitnaal jàpp la dugal la kaso te li nga nekkoon ci kaso gi yëpp ñu ngi euh, suivre li nga doon def foofu ba yàlla def bi nga demee ba mënoo mënoo muñ euh, fitna boo xam ne teg nañ la ko nga daal di sóobu ci grève de la faim ñu gis ko gis également tolof tolof yi nga fa am yëpp ñu ñu ñu la ci massawu mais xamal la ni également fi nga nekkoon naam gisoo woon nit ñi xëy na ku mel ni Yolande daan nga ko gis de temps en temps mais ñun ñëpp ak yow ñoo bokkoon. kii bi parce que en réalité mission bi benn la ba tax na euh, am na ci ay manifestations yoo xam ne jigleel nañ la ko lu mel ni li amoon ay euh, rajo euh, kii groupe Walfadjri yu ci ëpp nag fekkee nañ ko bu ci mujj bi sax man mii sama bopp nekkoon naa fa jël fa kàddu donc ñu xamal nit ñi ne place ou Cheikh Bara ak lépp loo xam ne représenté na ci Sénégal fii. du woon kaso waaye nag dafa fekk ne euh, nit ki ku nekk ci ñun boo xamee sa destin rek doo sonn parce que am na loo xam ne foo nga jaar fa te euh, suñu mag yu baax yëpp jaay nañ leen doole dugal leen kaso waaye nag tey jii ñun suñu jamono la ñun ñii ñoo toll foofu waaye euh, ak lu mu mëntan mel mel Euh, buñ fa waree jaar rek faw ñu jaar fa Sénégal moo ko jar Sénégal moo ko jaral Sénégal moo la ko na donc euh, yàlla teg na la nattu boobu nga ànd ngor ànd ak ngëm nangu ko du tax loolu yëpp du parce qu'en réalité loolu moo qui di déranger. Euh, man ci sama wàllu bopp ak ñi ma àndal xam naa am na loo xam ne xam nañ ko seen ci Cheikh Bara jàpp nañ ko ci Cheikh baara moo tax ñu naw ko donc mooy suñu tànk tey ñëw fekk la fii ci sa njaboot euh, ñu am ci mbegte ndaxte amaana man mii sama wàllu bopp xalaatu ma woon bu ma ñëwee ci condition yi laa lay fekk ci wàllu wérgu yaram waaye sant yàlla donc euh, de la masawu encore une fois de la wax ne délégation bi jógoon tey pour yegg fi fii euh, li ci ay lim ëpp li ci ay ay kangam yo xamné ne nañ ci opposition bi euh, bokk nañ ci société civile bi bëggon nañ fi yegg waye xamna né euh ce n'est que partie remise bu soobee yalla ñooñu également dinañu sol sen dal ñoo fekk ci la.

Euh, maa ngi ko doon wax ki ma àndaloon sànq ne ko ñun kay xam naa ne Macky dafa nekk suñu nattu rek waaye nag euh, comme li ko dese bëriwul euh, te xam na fu ko sénégalais di xaare mm, ñu ngi ñaan yàlla rek bu vingt 25 février 2024 jotee moom ak képp koo xam ne ànd nag moom yàlla jëlee leen fi bu ko defee mu delloo Sénégal ci ay loxo yoo xam ne ñuy am yërmande ci askan wi la ñuy doon ñu am ñuy taxaw bëgg-bëggu askan wi la ñuy doon parce que en réalité loolu mooy. kilifa yi ma àndal wax nañ lépp waaye comme mënu ma cee ñàkk barkeelu rek ma sànni ci ñaari kàddu man tamit yàlla def na cheikh bi tele lañ njëkk daje ñu daje télé def émission ba noppi ma dégg ñu naan ñu naan ko def gis def gis def gis nit ñi ñëw di kii mu ne ko ah waaye cheikh bi dimbale ñu Sénégal jël coupe d'Afrique du ma ko fàtte mukk mu ree ma daal di dem yàlla def nag jamono dox dox dox dox bañ am relation mais muy relation wu nit ak nit mu nekk ku oyof mu nekk it koo xam ne ci yitte nit ñi lay dox loolu mun naa ko firndeel ndax euh, am na ku may àndal mu nekkoon ci ay jafe-jafe euh, mu di kilifa cheikh bi da doon Omar am lu mu ko jox ne ko demal nga joxal mako soxna yi kilifa lolou mu na ko témoigner lolou muy mota bo waxe wax bi nga wax dama koy dama koy deugal renforcer ko ñu bokkit benen xarit bu tuddu Jean-Louis ma nga ci Allemagne muy it ku bax man ak mom sax d'ailleurs ñofi fi ñu fi set si ko vraiment ken ken na table wu ko ci liko yalla may ci xam-xamam ci OFM waye kontante bima am moy Sëñ Bara dafa bok ci ñi nga xam dañoo décomplexer les Sénégalais moi je pense que buñ jógee ci 2024 ñu melni Cheikh Bara posé nañ ay jalons tek nañ ay djégo ci kaw table ba taxna suñ constitution sax dañ ko wara xolat lutam lu wax parce que constitution bi day wax né so déggul tubab ba toll ci yeen niveau yi mëno ko bind mëno ko lire tu n'es pas éligible mëno fi doon président wala kilifa nga gis ne biñ tollé ci moment bi nga xamante ne intellectuels yu bari dañoo déserter le terrain. ñi nga ne dañoo jàng am ay diplôme xam-xam ak whatever jëriñu dara Sénégal lu dul bindi livre dugal ci ay tiroir nga gis koo xam ne doomu daara la à travers moom ngay gis ay analyse yoo xam ne pertinance bi muy am tax na ba éveil des consciences juddu ci ñu bëri tax na ba ñi nga xam ne dañoo jàppoon ne ñoom boo jàngee daara rek yow bokk toj ci société bi ba tax na tey seen place ñu replacé waat leen au cœur de la société tey jóge ci daara ak jóge ci école moo fi yem amatul nitu daara bu am complexe te bokk nga ci ñi ñi décomplexé nitu daara yi loolu dafa am solo moo tax sa jàpp bettul kenn amul Sénégal kuy yeewoo fii ku jàppum Cheikh Bara bett parce que ñëpp xamoon nañ ne machine bi nga yor ak li nga déclenché ci sénégalais yi loolu nguuru dictature mën ko accepter parce que da nga bok ci li ñu woowee kuy def la conscientisation des masses masse ñi nga xamantene ne sama classe gi jànguñu suñu amé ku tok ci télé di leen defal analyse te bok ci ñom dañ ci gëna mëna gis sen sen bop donc say discours aérien wul say discours nekul ay parabole koy tubab te la ngay wax dindi ko ta kon di la sant di la wax ne. man duma ma ci ñi lay massaw parce que massaw la sax moy xeyna euh ñak xam fi nga tollu ci pare waye dama lay gëna ñaax di wax ne amna na xeyna na yu gëna jafé jafe yi ñëw parce que yoon bi nga tan la te yoon bobu boko tanné choix la xana kay ñi nga andal say njabot say talibé say mbokk ñom ñoo nara son waye yow nga di wax di gëna ñaan nga gëna dëgër ci sa pare gi nga paré ndax euh fiñ jëm donte ak nguur gi ni xeyna sori wut waye Senegal pour mu defaru des na yon bu gudu gudu gudu gudu te ci yoon bobu nonu soxla nañ fi ñu melne yow yalla may la dëgër may la doole may la katan yok la wir sam la ba nga continuer di def la ngay def ci senegal di ñaan nga gaaw ñew parce que Senegal tamit nam nañ la nam nañ say euh vraiment lu mu gëna gaaw ñun gën nañ ko soxla inshallah lolu la ci bëggono sanni ci ay cadeau jërëjëf. Euh,

li nga xam ne moom moom lay bañ idéologie bi mu nekk ñun ci lañ nekk yàlla teg ko lu metti ndax natt bu ñëw ci kaw nit rek tàgg na yàlla doog a ñëw ñu teg ko injustice jàpp ko lakk otoom euh, def ko maa bi ñuy def ñëpp ñu yàlla dogal na natt boobu yàlla teggi ko ñu ñëw tey di ko massawu si di ko sargal si di ko seet di ko ñaanal aussi di and ak mom di ñaanal détenu yi nga xam ñi ngi ci biir kasso bi tay te amna ci ño xam sax c'est des sans fois je pense que ben Cheikh bam Cheikh Omar Bamba job di sama dom ak euh, ku mel ni Assane Mbacke ñom nga xam barki demb lañ leen japp xam nga mën a tooñ a ci fekk nit mu tok ci nga japp yobbu tejj bam neex la nga Senegal euh, tollu na fo xam fim fi nekk euh, ragal pété dana xagn nit ñi lu bari parce que fi nga féete même bu dee moo gën a métti da nga fay rek man loolu laa xam ñun fi ñu féete mooy opposition bi mooy président Ousmane Sonko mi nga xam ne moo njëkk tey ci détenu yi mooy détenu bi ci gën a euh, nga xam ne injustice bi yëpp ci boppam la commencé ñii ñëpp liñ leen teg c'est des effets ci li ñu teg Ousmane Sonko ñu ànd nag ñëw tey ci seex Bara mii nga xam ne ëttub ñaan la jóge ëttub jaamukati yàlla ëtt ci dereti wàlliyu ci la cosaanoo ñu ñëw nag fii ci këram di fi ñaan yàlla mu may jàmm Sénégal may ñu président bu ragal yàlla ndax lépp ci ragal yàlla la tege prochain président ba ñuy amaat yal na nekk ko am taw it yal nekk ko am yërmande comme ni ko doyee jante waxee sànq nattu yi Sénégal di dund tey nga xam ne jeunesse bi yëpp ku demul noyé wu ci biir Méditerranée ba yaa nga dem nekk ci biir kaso ba sa yaay ma nga doon dimbale walbati ko sonn léegi lañ jógee par kër Pape Abdoulaye Touré ñëpp a jooy ndax yërëm yaayam muy soxna su takku su am taxawaay su am détermination mais xol aussi du du du kii bañ koy bës am na loo xam ne bu la ko tegee rek dafa nekk lu metti loolu tey moo nekk suñu tànk ñu ñëw nag seet si suñu frère wante ñëw aussi seet suñu mbokkum daara di ko wax mu mu mu dolli ñaan ndax dëkk bi yaakaar naa ne fi mu nekk ñaan lay la soxla injustice si bari na euh, autoritarisme bi bari na maa tey bi bari na jaay doole bi bari na te loolu yëpp fa mu jëm baaxul injustice bu nekkee ci dëkk ba sax fa góor ñëpp kaso mooy seen kër tous les hommes libres tous les hommes honnêtes son en prison les vagabonds vaquent à leurs occupations te loolu nag dafa nekk loo xam ne Sénégal mérité ko ku xamoon ne tey boo falee nit day wëlbatiku jàpp sa njaboot tëj ñee muy dóor ñee muy rey ñee muy tiré bal li xew démb ku nekk gis na ko fu mu dem ci àdduna gone yaa ngi koy yuuxoo gone yaa ngi koy iye ñu ngi génne ay images yoo xam ne ruslu na sax ci sénégalais nit di la ko gisal parce que dañuy dem ci monde bi fépp foo dem Sénégal li mu nekkoon tey dëkk boo xam ne bu am renommée la foo dem ñu ne la dëkk bu jàmm am la pays de la teranga la léegi c'est le c'est le contraire daanaka boole nañu ci dëkk yi nga xam ne nii violence daf fee daf fee am kër dëkk fi lii raam nag du egg ci ñag bi ndax duñ ko seetaan li ci des nag bariwul nañ ko muñ mais nañu xex aussi taxaw parce que amna na xamné xam kenn mu leena a tee xeex deretu bañkat lañ am lu mën xew ci aduna injustice duñ ko sétane buñu ñu ko mënul a xeex dinañ ko naqarlu wax ko dinañ ko naqarlu ci seen xol donc li daal mo doon suñu ay tank délégation bi nak comme niko ko waxé bari woon na mais comme dañu am yu point yu bari yu ñu war dem on s'est divisé en deux Fatou Blondin ak ñom doyen Mbodj ak ñoo ñu dem continuer ñun ñu ñëw ci yow and ak chat ak Yolande mi nga xamné xalé la mais ku am jom la ndax taxawaayam lu bëree bëri rafetal na ko ci biir F24 bi day dem di boole nit ñi di di seeti détenu yi def loo xam ne sax peut-être ñun la waroon te mënuñu ko niñ ko niñ ko bëggee ñuy ñaan daal di ñaan yàlla di la ñaan aussi nga ñaan ci barke maam yu baax yi ci weeru gàmm bu tedd bi saxri rabil awal ñu nekk que coono bii sénégalais yi nekkee xol yu tàng yi nit ñi nekkee yàlla teggi ko injustice bi yàlla dindi ko ba mu set ñu dellu nekkaat at dëkku jàmm àndaat liggéey te am daal président bu ragal yàlla te am yërmande jërëjëf Ndiaye wa rahmatullah xam naa di jiital ci nuyoo bi suñu yaay bi soxna di jéggul na bu baax a baax taw ko ko taalibi rek lay doon waaw di ci teggal di jante di nuyu bu baax ak ñu ngi lay nuyu xarit sëñ soxna yow ci kër gi nga ndax na fi <laughs> avant di xew na te xew ci ba bi ñu nekk pavillon daanaka chaque jour mardi ak vendredi ñoo fay dajee ñoo fay dajee daanaka boobu ba ni sëñ piqué waaye kàddu yu cant yoo xam ne nii moom jóge na ci sëñ Baara jëme ko ci F24 bëgg ngeen tegal ko ci loxo yi doyen Ndoye mi nga xam ne moo jiite F24 ndax kàddu yu cant la ak ngërëm te gis na tamit euh, bi kii bi amee sitting bi am Walfadjri ñëw na fa ndeysaan yëkkati fa ay kàddu comme Mouhamadou Lamine Diante ak waa F24 gépp rek te it mu doon lu rëy ci moom loo xam ne nii bi mu amee ci sens rek lañ ko yëgal lépp te it dafa nasoon tamit daane bu génnee ci ba lu ba pare ba siyaare ji xalif général de Mouride xam naa jeudi incha bi war na fee jógee dem Touba siyaare ji xalif général de Mouride kilifa yi nekk tubaa yëpp warat ko fépp lane woon bu paree tamit day dellusi tamit képp koo xam ne nii rek wax nga ci wala wax nga ci moom kàddu dana ñëw ba ci sa biir kër saafoonte yow sant la gërëm la. moo taxit sax xam naa ne boobu ba léegi kenn gisu ko ci télé yi mu génn ak noppaloom ak noppaloom ak loolu ndax dafa bëgg daal bala moo commencé rek incha allah rabbi dem ba ci xalif général de Mouride comme noonu sant ko gërëm ko ak kilifaam yëpp teg ci ñi njaboot gi nga xam ne képp koo xam ne jàpp nga ci ba pare bu paree nag génn mën a wax ak sénégalais yi comme ni ñi nga xam ne ñëpp namm nañ ko te it ñoo ngi koy xaar tamit incha allah rabbi cant la daal goo xam ne nii ameel na leen ko yéen waa ndax taxawaay bi rafet na. ndax Yolande mi heure bu ñëwé ci F24 la ñëwé la fa ñëwé te mardi bu nekk ak vendredi bu nekk dana fa ñëw lool nak gis na taxaway bi te fas yéene ne tamit ànd ak yeen comme nim ko defee won avant li lepp di xew àndoon na ko yeen comme ni ko léralé loolu timit day continuer insha allah rabbi dara du ci dag non la koy andé ba ñëpp genn ba réew mi am jamm ndax mom réew mi am jamm do nga tax muy def li tayit insha allah bi am nañ ci yaakaar yaakaar joo xam ne nii foofu mu nekkoon tamit daanaka ab école loon rek dafa jànge ndax nit boo jiitee ay nit nekk sàmm war ngaa dem fu nekk xam la fa xew mooy tax ëllëg boo mënee génn di wax mën a leeral ndax yoon la mu dugg foofu ndax bu demee ba war a changer am na yu fa nekk yoo xam ne tek moom teg na ci bëtam dana mën a wax loolu dañ kon ab jaar-jaar la boo xam ne nii mënut woon a ci moom mu jaar comme ni nga ko waxee caat duñ ko mastaw waaye tamit dañuy xam ne ay examen yu mu doon def foofu la pour bu réew mi waree sensé moom mën wax ne léegi lii mën mënees na ko soppi ci prison yi ndax loolu tamit dañ koy xalaat ndax tout le temps ña nekk ay détenu ay nit lañ dañuy soxla ñu leen di dimbali ci seen i tëddukaay ci seen nekkuwaay ci seen lépp ginnaaw moom kilifa la goo xam ne nii dem na fa ba dugg xam na la fa xew bu génnee boo waxee danañ ko digg kon loolu dañuy xam ne jaar jaan la rek waaye nekkul loo xam ne nii moom lu kii la lu mëntoon a ñàkk ci dundam la ndax nit kilifa moom boo jiitoo moom luy tegu rek sa kaw lay tegu te it moom noonu la ko jàppe ndax di yaran xew-xew yi di am tamit dana lay nattu la rek am nattu la boo xam ne nii tamit damay jàngi rek damay dellu siwaat comme moo ngi mel ne ku nekk ca daara ja rek comme ni ñu ko benn chronique am boo xam ne tout mu naan buñ ma jàppee tamit liñ man mooy yóbbu ma di ma garde buñ ne maa tëddal nii ma tëdd bu ne maa sumeekul ma summeeku dañ may garde ba seen xool sedd ñu génn ma ma génnaat di wax li <laughs> kon noonu dong la demee nag moom daal sant na leen lool gërëm na leen waaw te it fi ngeen nekk rek ma nga fa incha allah rabbi bu jógee ci lii fépp fu ngeen teg seen tànk rek yeneen moom yéen a koy ànd